si diggante bi équipe bi yàqu na de Doucouré Doucouré sa équipe yàqu na de l'essentiel euh, je suis présent je peux faire tout <laughs> ah mais li lan la Big Taf doo ñëw genou lan yow nga ne genou kii para ah ma ngi échauffé ah waaw baax na ah. am bongo dina leen gagné de baax na ah waaw baax na alors euh, Big Taf dafa ragal Big Taf Big Taf moom moom bi mu ko musu ko bëgg moom bi daf ñu ci wax boppam très bien alors 10 tours grand grand dañuy bàyyi en bongo représenter son équipe dañuy bàyyi en bongo représenter son équipe Doucouré représenter 2STV à 10 tours ñu dem ci kaw da ngeen di wëndeelu fukki yoon à 10 ñu dem ci kaw donc coach ma compté 5 4 3 2 1 top c'est doo miir wëndeelu rek demal. ay ca toog attention c'est parti. hey Doucouré non non non non non non non non non non non non revenez am am kay am kay am kay am am kay am am descend am am bongo kay Doucouré viens viens faux départ faux départ faux départ faux départ non non non mais t'es allé chercher au niveau 7 mais tu es allé chercher au niveau 7 non non non non faux départ on recommence on recommence <laughs> non on recommence Doucouré 7 nga dem jëli 7 7 da nga bàyyi 1 2 3 4 5 nga dem jëli 7 waaw bu ñu tourner fii 7 fois wala 10 dañuy wàcc fii de barke yonent bi daa bari <laughs> non da nga war a tourner non da nga war a tourner tourner moom mënul feebar kenn mënul wàcculoo kenn da nga war a fois na góor ñi def <laughs> bien. la <laughs> on commence par un attention cinq quatre trois deux un c'est parti dix tours un deux Doucouré trois quatre <laughs> cinq six 7, 8, 9, 10. nax na la nag am dawal de am dawal dawal. am dawal <laughs> ay am ay am ay eh, am. Doucouré tu fais le crapaud. Doucouré non non non Doucouré tu fais le crapaud voilà voilà yow. Doucouré. <laughs> <laughs> Eh, très bien da koy eggali Doucouré. Eh, da koy eggali yéeg a ci escalier am da koy eggali Doucouré a ci waaye si côté da ci escalier ci escalier yi jaar nga dem àggali ko. ayca on continue. bravo am nga am. merci. Doucouré eh, eh bul eggali de oh. <laughs> voilà mooy attends attends attends bul wàcce bul. attends attends. <laughs> voilà. ayca <laughs> ayca. on a on a on a deux on oh, a <laughs> kay kay jeexagul c'est intense. kay leen tir à la corde. doon liggéey bu toll nii yow amoo benn ngor li ngay naboo. l'équipe de Ambongo ici.